wax ji bëri na fan yi dañuy màggal wala duñu màggal nañ fomm na sëriñ bi wax kàddu yooyu mën naa bàyyeekoo fu ne ba mu des ci ab taalibe murit bu dëggal yoonu murit daa am nu muy doxee topp ndigal déglu sa kilifa ku ne xam na ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir mooy xalif général des Mourides te ku fi nekk xalif moom mooy Serigne Touba ci lu wér amul na table lu Serigne Mountakha Mbacké Bachir def rek lu mu xam la. su dee ndigal dafa war a bàyyeekoo ci màggal gi moom rek moom moo ko war a wax te bu ko waxoo nit murid bu ne war koo mën a jëfee ndax Serigne Touba jàngale na ko ci sifaatu saadixal muridina di melokaanu dëgg-dëgg murid saadix te murid bu nekk ca saadix ga nga bëgg àgg murid bu ne nag war naa moytu Serigne bi daa war a wala Serigne bi warul woon a ndax du ak taalibe jamono ji nag yàqu na lool am ñu bëri ñoo xam ne fonkatuñu kilifa loolu nag bu mu dal mukk taalibe murid yi ndax jëfee ndigal bàyyi tere loolu lañ leen xamee nañu bàyyi wax ji te jëfee ndigali Serigne bi ndax moom rek mooy li ñuy jariñ sëriñ Muntaxa moo nu gën a ragal yàlla gën ñoo maandu gën ñoo bëgg lu baax te bëggal ko mboole mbindeef yépp moo nu gën a jege sëriñ Touba te gën ñu koo bëgg loolee sax day feeñ saa su ne ci ay waxam kon nag nañ ko doole wóolu te déglu ko fonk ak kilifa ndax sëriñ Mbay Jaxate daan na wax ne kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb bu ma wax te sëriñ bi nee na ku ndigal taxa naaje boo jugee da nga dabe mboole murit nag la leen war moo di déglu sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru te lépp lu mu wax rek mu nekk lool mboolem taalibey murit da ko war a jëfee ndax paaka nag kenn du ko jiitu ci mbaram